ici ouais. en vous félicitant sur le, sur le triplex que vous avez réussi. C'est une première. Continuez, on est derrière vous. Merci. ñu jox euh, Jabel Jabel. jërëjëf Bécaye. Euh, mais. Jabel Lonaas. jërëjëf kàddu bu mujj gi je crois mooy euh, remercier 2S ci prouesse bi mu réussir bi mu réussir tey féliciter leen te. ñaan yàlla dugg ci journée bi ci bismillahi rahmaani rahim. Mm. génn ci si alhamdulilahi rabbil alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Moustapha Diop. jërëjëf jërëjëf ay dara bu Sen TV mi ngi wootee ci suba ba léegi moom bu gisee yi xol bi day sedd Ahmed ñu ngi lay gërëm nee na bu gisee xaar may ma jaaga xol bi day sedd balaa ñoo jox ajaratu xaar may ma jaag monsieur Lam yow tamit jërëjëf eh, ci 2STV la bokk ànd ak El Hadj Ndiaye te yàqalu ko dara. di ko jàppale guddi ak bëccëg ñu ngi lay gërëm ñu ngi gërëm Mbay Jaañ di ànd ak Luc guddi ak bëccëg bu Luc mënee tëgg ay làmb Mbay Jaañ mooy ki nga xamante ni dina dem di seeti mbër yi di waxtaan ak ñoom Pape Faye jaar na fi ñu ngi koy gërëm bu baax ci liggéey bi Moustapha Diop mention spéciale gis nañu liggéey bu baax bi nga xam ne moom ngay liggéey ànd ak sa mag El Hadj di ko jàppale ci liggéey bi te ñun yàgg na noog yow lépp loo xamante ne nii bokk na ci liggéeyu télévision buñ la ci gisee sunu xol dafay sedd guy. di remercier ak encourager mbër yi nga xamante ne nii ñoom la ñu jël ñu war a bëri ñu leen xamal nag yéen a ngi bëri ci bis bu mag te nit buy bëri ci bis bu mag dafa am lu mu ci war a wone ci fulla ci jom ndaxte bis ba moo lay feeñal loolu bu leen ko fàtte di gërëm ni ko laa bu baax. ci lëkkaloo bi mu lëkkaloo moom tamit ak élage Hadj ñu koy ñaanal di ñaanal soxnaam sunu borom guddal seen fan sunu borom yokk seen taxawaay lii am ci télévision 2STV tey jii rek mooy firnde ni télévision bi et bu ñuy wax télévision des grands événements moom la mooy la 2STV ñu ngi leen di gërëm bu baax ndaxte lii rek lañ ci bëgg. ajaratu xaar mbay ma jaaga balaa moo balaa ñoo dem ajaratu xaar mbay ma jaaga tëngéej bari na ñoo xam ne tey jii. télé boo fa ubbi rek 2STV la ñu jàpp te say nit lañu say mbokk lañu te am na ci ñu bari ñoo xam ne war nga leen a tudd woo leen ci bis bi ndaxte le 15 juillet journée spéciale xaar mbay ma jaaga lañ ko war a décréter fii ci réew mi ajaratu xaar. waaw loolu moo ma metti ndax li ñuy doxale kii diggante wax yi day tax nga def sax da nga fàtte te fekk fàttewoo woo dafay fekk dañ lay téye ndax ku mel ni Ousmane Sène Bélé waaw mu nga tëdd waaye xam na. waa bele Ousmane seen bele di sama xarit ku mel ni Koora Faal di sama xarit war na ñoo xam ne su ma waxee dama leen di tudd ba mu sax dégg nga ku mel ni Mame Balla Guèye di sama xarit di sama xarit colonel Mame Balla Guèye di sama xarit Xaadim sàmb moom laa leen bàyyeel di sama rakk di sama xarit waa marché jën te Tëngéej maa ngi leen koy yëgal na ñëpp ñëw maa ngi koy yëgal marché bi nga xam ni mooy. marché marché ñoom Fane Ndiaye ñoom Ndeye Penda bi nga xam ni. Eh, maire waat daa fa ne. maa ngi leen ah. ko yëgal ñoom ñëpp. di ko yëgal te ngay gépp su ma ci su ma sañoon tudd ñëpp. dëgg la ndax ci defante nga man lu baax. dëgg la Youssou. Ah. ndéem ñëpp a dégg jogoy man Youssou. tuddoon Youssou tuddoon maa maa ngi lay ko daat. waaw waaw. El Hadj Malick waaw mu baax mi. wax ko bu baax maa ngi lay nuyu barki nga ma woo sa bureau barki dem nga wax ak man. ah waaw maa ngi la koy yëgal. Mm-hmm. di ko yëgal réew mépp Alaaji Njaay ah. maa ngi lay sant. lit na ko laa maa ngi lay sant maa ngi ñaanal nag Abdou Ndiaye baayu Mariam Ndiaye. ndeysaan amiin waay. ndax Abdou Ndiaye. Ah. ba ko fekkee buddu. ca Bakel nag la ma may. ah waaw. maa ndagay da saaxo. ndeysaan. kër bu nu ngente Aji Ndiaye. ñaari nag la ma may muy ñeent. ah waaw. ni jàkk nag Mariam Ndiaye na ko lu xaar bëgg def leen ko baa ma def ko. dëgg kon maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla. waaw di woo nag waa kër Ndeye Soxna Kanab du Karim Kati Diop Fatou Pata Fa Diop Jama yaati du bàyyi kadu koo xameel. maa ngi woo waa kër Seynabou Diallo. waaw loolu am nit nit day woo ñamu xam. dëgg la di woo nag sama rakk yëpp. mbay caba ah. mbaa xale ngi ci di bis bis ah. bisa Ah. waaw dëgg la waaw waaw ajarut xaar jërëjëf mbasu mbom mbasu pareelal xale yi ah. Faat Diop Faye ah. gis nga li Diop ba joojo def ñoom Sow waaw damaa bëgg ngeen def la ngeen def loolu di waa Mama Yaa seen Mama Yaa waaw Mama Yaa maire bi maire maire te ngeen xale bu baax nit ku am maana di mbay saak ah <laughs> sa bal jàmboor <laughs> jërëjëf mbokk yi lii lii avant première la rek ñu leen di fàttali bu soobee yàlla et le sept dina am fasa à face Gris Bordeaux Modou Lo waxoon naa ko léegi invité wuñ fa fans club invité wuñ fa supporter invité wun fa kenn ku dul la presse toute la presse nag amul xàjj ak seen toute la presse nationale international ñu ñëw ñu wax ak ñi nga xamante ni moo di ñaari mbër yi ku nekk wax la nga xamante ni moom nga gisee bii combat 2STV nag. ñuy gërëm ñii nga xam ne ñoo nekkoon Parcelles Assainies Adja Xaar dafa mel ni daa am loo bëgg a dolli. damaa bëgg Serigne Niang. laa bëgg ci xale te géej yëpp. waaw ñoom ñëpp. ñu ah. àndandoo. dëgg la. sama xel nga ci xam nga tax ma wax loolu baayam dafa mbay saak baayam dafa àndoon ak ñoom mbay saak may di sama càmmeñ. te bëgg ma ah, te bëgg la te bàyyiwuma benn yoon. du la baax loolu sama gune kenn du la baax. Bijou ak euh, sunu invité yi toog fii yëpp ndeysaan ñi ngi am mbégte lépp ah, ci ñi fi toog le milliardaire le saoudien ñi ngi am mbégte ci teewaay bi dudu yaaykat yi jërëjëf jërëjëf ñëpp ñi teew fii mbokk yi lenn rek lan ci dolli mooy di leen xamal ni bis boobu bisu làmb la waaye bisu culture la te ajaratu xaar may ma jaaga ak rakkam yii jarbaatam yii bëgg nañu la 15 ñu toj stade Demba Diop tëggkat yi li ko dalee ci Macheikh ca Wiyeseng li ko dalee ci képp koo xam ne tëggkatu sabar nga woonal waa kër Pape dina nu ñëw waa kër du Ndiaye Kumbaros dina nu ñëw waa kër Alaaji Mbay ci Pikine dina nu ñëw kër Njobbo dina nu ñëw ah baayu Mbay Gay baayam dina ñëw waa këram dina nu ñëw ñooñu ñëpp bu soobee yàlla dina nu ñëw bu soobee yàlla liñ ci bëgg rek mooy mu doon biis boo xamante ni bisu senegal la ñiy gërëm nag équipe yi newoon à la Médina gërëm équipe bi nekkoon. Parcelles Assainies non non non équipe bi nekkoon Parcelles Assainies ak équipe bi nekkoon Médina ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm it yi nga xam ñu ngi mobilisé wu depuis ce matin pour liggéey li nga xamante ne moom la ñu liggéey Adja Xaar loo ciy dolli. dama am nag koo xam ne mooy yàlla may xolu muñ waaye yàlla def ko fee jëlee nag yàllaa ko fi jëlee te mu wóor ma ne bu doon dund nii lay def papa ndongo joŋ dëgg la dëgg la yàlla sama rakk ja Touba yàlla na ko yàlla gàtt waa du salaamaaleykum mi ngi ñëw salaamaaleykum waaw ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak seen sant bon wala lu weesoo Adja Xaa bu te mu dëkk Tëngéej juddoo Tëngéej mu daan ànd sama yaay bi ma koy xale bu ndaw laa Adja mooy sama yaay ngay ànd ak moom boobu temps aas la ñoom tan day soxna kan tan sey na fay tan ngoya kan bon voilà quoi ñoom ñëpp tan laa la sama yaay ji ba léegi tu vois mu nekk loo xam ni image la du ma ko fàtte ak père Abdou Kandou Kouré ok donc damay demande benn appel waaw ci ñuy dugal seen loxo ci combat bi sànq dafa wax Serigne Niang fekk Serigne Niang sama frère la suma xarit la waaw Serigne Niang daf dama bëgg mu dugal ci loxoom bu baax a baax a baax parce que Serigne moom xam na ko ah, doomam la waaw ah. Tëngéej. waaw d'accord. et retour bu may def Tëngéej. def mobilisation. waaw bëgg naa cinquante ba cent yoo xam ne dañu jógee Tëngéej. ñëw déglu barki Serigne Touba. bu soobee yàlla. Adja Xaar na ma loolu. waaw ndax Adja Xaar jaral na ma ko. maa nga juddoo Gendal. te Kër Matar Ngoone Jaar ma bëgg cekkee nag xam ne ñoom rek laa maa ngi waa Abdou Ka Ka Doucouré. E mbokk yi kon foofu la ñuy tàggoog yéen ba le sept bu soobee yàlla vive la 2STV merci ñoolam bu dee jooje mbakorambal ala Ibrahima Ñaay may salaam waaw banda ñamanta booba bonde doy yondu doy alaaji may salaam baloode nani woo